97.5 tey jii ñu daal di euh, fas yéene euh, waxtaane ay ponk yu soxal actualité bi euh, laal directement société sénégalaise ñu gis ni crise des valeurs dafa daal di am ci réew mi gis neen tamit scandalu Miss Sénégal bi nga xamante ni moom la ñëpp di waxtaane ak scandale bi nga xamante ni am na yaa une ou deux semaines di euh, famille Paye nekkoon suicide ak tamit yeneen i ponk yoo xamante ni rek euh, soxal na euh, li nga xamante ni moom mooy crise de valeurs file ci réewu Sénégal daañu ko waxtaanee ak kile di Abdou Khadre Sanokho nekk sociologue maanaam xam-xamam màcc ci nekk ñu nit ñi ak ci société ñu koy nuyu di ko dalal jàmm Abdou Khadre Sanokho maa ngi leen bu baax di leen nuyu di rafetlu aussi kóolute bi. voilà Abdou peut-être euh, laaj bu njëkk Sanogo moom mooy ban analyse nga def si euh, li nga xamante ne mooy crise euh, des valeurs file ci réewu Sénégal. oh bonne analyse en fait souvent moom ñëpp dañuy wax crise des valeurs crise des valeurs. mais je crois pas que au-delà de bon est-ce que les valeurs sax fondamentalement sont en crise je crois mm. que hmm. c'est aussi euh, problème mu comportement la rek te comportement même su valeurs yi soo leen fi tegoon aussi te nit ñi euh, seen doxalin seen gis-gis seen xalaat euh, ci àdduna bi fi ñu jugee fi ñu toll ak fi ñu war a jëm su fekkee ni ñoŋul après ça va ça va ça donc moi je trouve que mën nañ bàyyi valeur yi mais je crois une crise de personnalité d'abord quoi nit ñi waaw donc personnalité yi mooy nit ñi nga xam ne nii ñoom ñooy jëf di wax di dox ci seen doxalin moo am lu bëri loo xam ni dafa sooxe te loolu suñ koy nat euh, léegi amaana dafa daj réew mi cest à dafa nekkoon loo xam ne mën nga ni bu njëkkaan da ngay wax ñu ne xale yi la après ngay wax ñu ne ñi jàng école la mais léegi loolu mënatoo ko wax cest jafe-jafe yi da koy gis ci pàccu askan bu nekk dañ koy gis ci ñu jàng diine dañ koy gis ci dañ koy gis ci ndaw ñi dañ koy gis ci mag ñi dañ koy gis ci góor ñi dañ koy gis ci jigéen ñi loolu nag dafay firndeel ne rek société yi nga xam ne nii moom moo ñu tënkuñu dafa nekk société yoo xam ne dafa yëngatu ci biir yëngatu gi aussi mu nekk société yo xam ni dañ ciy gis ay pàcc yu bëri yoo xam ne nii ay feebar la quoi suñu société wax dëgg yàlla dañoo am jafe-jafe Euh, léegi yow lan lañ mën a dégg euh, ci valeur parce que yow yaa ngi wax sax crise des valeurs peut-être amul valeur yi fi ñu nekkoon ñi ngi fa mais crise de personnalité moo am avant ñuy ñëw euh, ci crise de personnalité boobule lan mooy lan mooy valeur exactement yan valeur la ñu xamee réewu Sénégal ba tout le temps ñuy revenir ci moo boobu valeur su fekkoon ni dama koy mën a tekki ci nasara ci wolof de damay wax valeur mooy li nga xam ne nii mooy kenn yi nga xam ni ak lii nga xam ne ni mooy laytaayu réew mooy li nga xam ne ni askan bu bu bu soso ci la ñuy nampatal ñi nga xam ni dañ fay yeewoo bu dee Sénégal nag ak loo ci mënti dégg quand même euh, suñu maam xamee woon nañ leen ngor xamee woon nañ leen jom xam woon nañ leen sutura xam nañ leen xam nañ leen fayla xam nañ leen doylu donc valeur dafa mooy lépp loo xam ne nii dafay rafetal di jëmal di taaral nekkinu nit ci biir askan donc loolu la ñu war a mën a jàppee valeur mais loolu tey mënoo wax ni Sénégal amul répertoire de valeur xam nga euh, su man li ma jàppee crise des valeurs moom mooy nga dem foo xam ne nii boo boo xalaatee gëstu gëstu gëstu gëstu doo gis loo teg sa baaraam ci lu rafet te ñun tey soo ko doon jël ci wàllu taarix ci fànn bu nekk nag ci nitu diine yi ci nitu aada yi ci même ceddo yi dañoo amoon ay comportement yoo xam ne ni kenn mënu koo wax ba pare ne da koy wax sans valeur maintenant léegi nag Euh, en en réalité man jàpp ma ni valeurs yi la valeurs yooyu mën na fee nekk mais ñi ko doon jëfee dañoo wuute ak ñun parce que ñooñu dañu amoon vraiment ak euh, jekkinu doxalin ak nekkin boo xam ne dafa mucc ayib léeg-léeg moom laay wax ñeen ñi pendant longtemps dañ ñoo bëggoon jaay ne oui il faut qu'on cherche un nouveau type de sénégalais mais en réalité ñun le nouveau type de sénégalais moo am problème mu crise comportementale et de personnalité mais ancien type de sénégalais bi moom fa mu fekkoon valeur yi da leen doon doxee di ko jëfee mu nekk miroiram nekk leit motifam nekk busalam ñun nag ñun en réalité dañoo dem wàll yan roy dàq ba ñu ñu ñu jaawale suñuy valeur tey koo ci gis soo gisee fukki sénégalais juróom ñaari yi suñu comporté woo lépp li ñuy def amul benn référence ak seen identité socioculturelle loolu nag moom la waykat bi wax réer donc ñun suñu askan problème bi mooy dañoo réer ba gisatuñu valeur yi fu ñu nekk tant que gindikuwuñu nag ça va poser problème. mais lan moo indi euh, crise de personnalité boobu bu fekkee euh, comme ni nga ko waxee sànq. Euh, problème yi maanaam pàcc woo jël ci askan wi domaine boo jël mi ngi fa. maanaam dafa dafa dafa daj daj dëpp daal. lan moo indi crise de personnalité le ba sénégalais yi réer peut-être sénégalais bi ñu xamoon bu njëkk ba ak sénégalais sénégalais bi wute na euh, quelle quelle lan moo indi euh, crise de personnalité boobule lan moo tax sénégalais yi soppeeku waaw xam nga lu tax ñu soppeeku mhm. dañoo am problème mu affirmation d'identité c'est-à-dire ñun li ñu doon dañ ko nangu te xam nga nit mhm. boo doonee dara ba pare nangu woo ko mooy amaana ca njalbeen nga réer nga mhm. il faut que malgré que dañuy jàng dem si université yi di tukki yi di tukki yooyu fu mu mënti doon mais waruñoo fàtte fa ñu jóge ak li ñu li ñu voilà li ñu li ñu laytaayoo waruñu ko fàtte mm-hmm. mais léegi nag roy dàq bi dafa bëri les gens surtout ak yenn outils bi mu commencé dugg si ñu commencé loolu la ñuy wax euh, dafa am euh, ñett yu ci yu ci lalu benn bi mooy imitation toppandoo mm-hmm. ñaar contagion wàllaate beneen bi mooy influence ñun dañoo subir trop ay influence mënu toppandoo trop te ñu gaaw ñoo wàll ba ñu fàtte ñun fa ñu xam na nit ki soo ko gaawee wàll mu gaaw a toppandoo te lu ñëw yóbbaale ko mooy influence mais su boobaa amaana du teel a dëgëral boppam wala mu laytaayal boppam ci li nga xam ne mooy base am ak ay racinam na damay wax nit ñi ne leen école ñu créé école nga jàngi amul benn souci mais ñun dañoo dugg ci école indaale ay xam-xam ba pare fàtte fa suñu bopp on a laissé notre identité à travers les bancs d'école ba léegi nag léegi li nga xam ne moom la ñuy wax euh, homo sénégalensis maanaam modèle intrinsèque bu ñu mën a xàmmee sénégalais dëgg dëgg dëgg dëgg tey yow man ak yow yëpp suñ ko doon seet dañuy am problème am hmm. man ak yow yëpp suñ doon seet le le modèle du sénégalais dañuy am problème ñun ñëpp suñu doom yi ay école lañ leen di dugal suñuy dem goûter lañ leen di jox suñuy jàngi papa lañ ñuy wax suñuy ñëwee bisu la ñuy wax euh, mënatuñoo frenkulaayu mënatuñoo lekke loxo mënatuñoo loolu nag la ñuy wax un phénomène d'acculturation gis nga tubaab bi ak loo ci ñoo ci dégg dégg naa souvent ñu ñii di wax France dégage ñi naan identité en vérité ils ont réussi leur pari mm-hmm. seen pari mooy dañoo dugal seen culture xeexuñoo même bi nga xamee ni dañoo retiré wu ci retrait euh, retrait retiré wu ci ay colonisation ay traite négrière ak du kenn xamul dafa am lu ñu bàyyil loolu ñu ñu bàyyil nag dafa dem ba colonisation boobu moo raw sax colonisation wu ay réew mooy colonisation culturelle mm-hmm. ñun dañoo acculturé wu comme c'est pas possible léeg-léeg sax ñuy jël am na kenn koo xam ne su defee dara si mbooloo dañ koy dañ ko naan branché wul il n'a pas compris il n'est voilà il n'est pas in il n'est mais xoolal bërki démb gis naa ci réseaux sociaux yi. Hmm. mais benn plateforme boo xam ne nii day transformer à la limite ay êtres humains en dessin animé mais en quarante huit heures sénégalais yëpp ku nekk transformé nga sa bopp en dessin animé. ñuy laajte c'est quoi le projet. mais c'est comme si mais xoolal force de sorte de déshumanisation boobu yàlla def la ngay nit. nga war a am fonk sa bopp tubaab créé benn logiciel am sànni la ko en un temps record nga gis Sénégal pour te dire esprit d'imitation bi ma la doon wax sànq ak de mimétisme mm-hmm. ñi jàng ak ñi jàngul ak les autorités presque mais groupe WhatsApp boo tijji nga gis statut nit ki wala nga gis profil am soo deful nank loolu la nga cay fekk donc eh, waaw est ce que nekkul euh, Sanogo euh, dañu yegg fi euh, président Léopold Sédar Senghor doon wax le métissage culturel c'est où l'on donne et l'on reçoit ñu dem ba ñun peut être lu bon la ñuy jël au lieu que ñu daal di jël lu baax parce que parfois sax da ngay même bu fekkee dañuy joxoñ baaraamu tuuma tubaab yeeg nasaraan yi parfois sax da ngay dem ba est ce que sax tubaab yi gënuñ ñu gëm seen bopp que africain yi wala sénégalais yi hmm. non non non je précise nag. Mm-hmm. man personnellement joxuñu ma man baaraamu tuuma amuma dara lu may reproché tubaab. Mm-hmm. suñu amee wax nañu wax ñun ci suñu biir mais c'est trop c'est trop simpliste que suñu waxee rek ñu ne ñu woy tubaab yi. ñoo def li ñoom tubaab bi la tubaab bi mais am na ci école tubaab bi am na ñu jàngi mm-hmm. yi ñëwaat. nekk ay di doxal seen liggéey ci wàllu àdduna te terewuleen ñu fàtte fa seen bopp mais soo ñaari exemple lay joxe yu yu patent soo jëlee euh, euh, ki gagné concours bugguma sax wax seen tur soo jëlee ki gagné. Euh, Mbuga voilà prix concours bi voilà. Mm-hmm. nga jël beneen xale boobu defoon fi fi te nga xam ne aussi. bugguma sax wax turam mm-hmm. ñaari exemple lañu ñu noonu. tey peut-être les gens leur tirent dessus. mais fondamentalement dañuy gis ni sénégalais yi en fait en fait koo ci wax d'ailleurs da ngay wax nit mu ne la diw dafa tubaabe. diw mm-hmm. dafa classe diw dafa truc mais attendez tubaab xam-xam la rek mu jàngal la psychologie wala sociologie nga dem jëli ji ko mais say aada say xar baax mais bis boo bàyyee loolu la ñuy wax euh, sensibilité ak compétence interculturelle maanaam yow mun nga am yëg-yëg bu sori ci gëm-gëmu jàmbur mais day fekk d'abord nga am nga nga taxaw fi nga day loolu la ñuy wax ku wàcc sa ànd ànd boo boo dem fekk ko mu toj sénégalais yi dañoo wàcc suñu ànd ñun ñëpp dañ ko nangu hmm. dañu gaaw defaraat suñu toogaay balaa béy di wéy voilà léegi ñiy joxoñ baaraamu tuuma ba léegi ci cause yi la ñu nekk euh, mhm. parfois film yi euh, pour euh, peut-être dinañu ne film yi nga xamante ni euh, ñu ngi koy seetaan bokk na ci li contribuer ci crise de personnalité boobu nga cité mhm. film yi ñu seetaan waaw film yi yow est-ce que d'accord nga si waaw wala déet que am na lu ñu def ci mbir mi waaw mais fu ma la waxee toppandoo toppandoo mhm. dafa am foo koy gisee te xam nga gis nga gis nga occidentaux yi duñ def rien de gratuit. Mm-hmm. film scénario la. Mm-hmm. scénario psychisme individu lay touché. film dafay véhiculer mode. li mm-hmm. ngay solo li ngay ay say tailleur ainsi de suite. film dafay dafay vi d'ailleurs soo soo gisee léegi la problématique de l'homosexualité ngóor jigéen. dessin animé tubaab bi dañ ko fay véhiculer amul benn film booy setaan ci télé tubaab bi te deful nànk doo ci gis benn scène wala ay ay ay acteurs yoo xam ne ak ay personage yoo xam ne soit ay jigéen lañ sede des lesbiennes wala ay góor lañ c'est des voilà li hmm. ci mujj bi ma mujjee seetaan mooy euh, euh, comment s'appelle encore euh, survivant désigné ci benn série bu mag bu ki Kiefer Sutherland di def hmm. benn chargé attaché de communication ak benn garde corps am mais dañuy am dañuy amal ay seenu góor jigéen carrément ci biir film Hmm. mais loolu nag bu fekkee ne yow amoo ci fàggandiku xale yu ndaw yi di ko seetaan di màggaale moom dañuy dem ba il y a banalisation de ce genre de pratique tey yëguñu ko mais ressort yi ngànk sunu à part ressortu à part ressortu euh, tarixa à part tarixa à bi nga xam ne lu dëgër la mënuñu koo yëngal yeneen yëpp presque ngànk ne te loolu nag mais su amee ci réew mais fondamentalement mais da ngay gis ni chaque jour nga dégg fii chaque jour nga dégg fi scandale nee naa leen même xaaru sax nit bu koy def mhm. day seetaan film wala mu seetaan voilà mais que tubaab bi def ko man posé wu ma problème mhm. que tubaab bi ñëw parce que nekk ci processus boo xam ne nii mun nañu yàq suñuy valeur te duñ ko yëg mais xam nga lan moo ma gêné que ñun ñu nekk ay sénégalais ñuy defar ay scénario mhm. di defar ay téléfilm di ci wane ay personnages yoo xam ne seen comportement yëpp c'est antagoniste mhm. c'est antinomique avec nos réalités socioculturelles mhm. yow bi nga màggee seetaan nga man seetaan naa ci bi ñuy nekk tout tànk ko ci nga doon dégg jamonoy tey ainsi de suite alors ñuy def ay scénario yoo xam ne dañ la doon gën a gëmloo say bopp si yenn valeur xaanju nda tey ainsi de suite mais tudd sax ay euh, turu ay série mais série yi ngay seetaan si télé yëpp dañ lay vendre le modèle de la femme belle le modèle de quelqu'un qui est capable d'avoir beaucoup de copains le modèle d'un homme euh, qui est très trompeur et tricheur comment su fekkee ni say waajur def nañ nga metti nga mettre leen la pression Euh, on te montre des appartements hyper euh, clinquants. Mm On te montre une jeune fille de rien du tout en compagnie de son ami avec euh, une bagnole. Ces scénarios-là, véritablement, sont des scénarios en fait yoo xam ne nii soo ko xoolee ba si amul dara lu si méngoo ak ñun suñuy réalité socioculturelle mm. man bu fekkee ni on parle du cinéma c'est là-bas où ça me pose problème mm. c'est le fait que ces scénarios là puissent être portés par des acteurs et des actrices yoo xam ne fii la ñu juddoo fii la ñu suñu joué benn scène suñu ñibbee seen kër du ñu dund loolu mm-hmm. même suñu joué benn scène je te suñu suñu defoon sondage léegi ñu laaj sénégalais kan moo ci mën a sukk ferenkulaayu lekk ak loxo mm-hmm. on se retrouver avec un résultat ñun ñëpp presque on se on se croit des tubaab ñun ñëpp on se croit des tubaab xam nga xam nga avoir un comportement déplacé weesuwul nga réer ci réew mi ñëpp di la seet nga feeñ après nga saaga ñu ñun ñëpp. Mm-hmm. comme ça se passe dans la société occidentale parce que ñëpp xam nañ ni tubaab bi saaga sa papa saaga sa yaay c'est rien pour ñoom mais modèle boobu booy bi moo feeñ soo dugee ci CM yi soo duggee ci lycée yi soo duggee ci université yi tu trouves presque les mêmes profils dans les salles parce que effectivement au niveau des films ak des scénarios genre profil yooyu lañ ciy gis même si tur yi bon bugguma tooñ ay téléfilm pour tudd seen tur mhm. mais ñi may déglu mun nañ lire entre les lignes fii téléfilm boo fi laal rek en réalité question yooyu lay aborder quoi. et mais, mais mais pour euh, yow Sanogo loolu lan moo ko indi euh, te gis nañ ni téléfilm yooyu la ñuy gën a suivre que yeneen téléfilm yi comme yi ngay. mais attention loolu lan moo ko andi. Mhm. non léeg-léeg ma dégg ñu téléfilm yooyu la ñuy gën a suivre mais attention li ko indi sa très simple mm-hmm. dañu am taux euh, peut-être d'instruction alphabétisation mun na rëy mais ñi xam-xammee mën a tàqale bëri wuñu si réew mi moi je peux vous assurer que soo ma doon laaj mm-hmm. ay téléfilm yooyu musu du ma ci toog sax ba ba xa c'est-à-dire espérer wuñu sax may toog naan maa ngi seetaan film yooyu di perte sama temps mm-hmm. te ma ci def leneen sa man ak samay morom bëri nañ ci mais effectivement ñun ñoo gën tuuti si réew mi Mm-hmm. parce que am na yenn niveau yoo xam ne nii soo fa eggee yow mën nga tàqale mën nga mën nga wëlbati mën nga xool lan mooy nax bon surtout des personnes comme ñun ak ci suñu spécialisation ak suñu spécialisé dafay leer ni dafa am ay procès de manipulation yoo xam ne nii scénario yi da koy bëgg a teg mm-hmm. léegi am na benn bis ma lire ci internet ñu ne bon euh, dafa am ay post yu ñu lancé ne dañ bëgg a def euh, casting mais bi ñu demee ci casting bi presque la fa nekkoon kenn mënul tout le monde veut être acteur tout le monde veut être actrice mhm. si par exemple aujourd'hui waxuñu xale yi ne leen am na ku mën a nekk masson ku mën a nekk imam ku mën a nekk avocat mais ñëpp dañ bëgg a nekk star dans ce pays là mais pose problème mhm. voilà mais est-ce que est-ce que exactement lu ma bëgg a xam lan moo indi loolu transformation wu euh, sénégalais bi exactement lan moo tax léegi. Euh, peut-être am na benn euh, minorité benn groupe bu ndaw ñoom mën nañu def distinction ba yenn yi du ñu ci tardel seen bopp. mais la majeure partie film yooyu lañuy ñuy seetaan moom la ñuy après di ko jéem a dund. waaw lan moo ko andi waaw bëgg a dund benn rêve. boobu nag boobu moom yéen da ngeen jël seen wàll. gis nga média yi spécialiste média yi ak communication mm-hmm. fondamentalement bokk na ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo def promotion lool parce que benn xale day ñëw fi mm-hmm. jóge benn émission bu ñakk fayda bu ñuy wax ay musique ay way mm-hmm. génn benn way boo xam ne amul xorom amaanul xorom seen animateurs yi nekk sen rajo yi ak seen télé yi ñoo koy jël di ñu ko imposer di ñu ko imposer di en faire des modèles waaw xale yi nekk seen biir kër tamit ñoom dañ naan ah donc lii kat yoon la beneen bi mooy yéen du ngeen c'est rare xanaa ngeen amee peut-être bon quand je dis yéen je je dis bon de manière générale. les médias. Mm-hmm. voilà les médias de manière générale laay wax yéen. Mm-hmm. mais tey médias yi ci biir réew mi mbër moo fi ëpp tur fecckat moo fi ëpp tur. woykat woykat moo fi ëpp tur. joué katu téléfilm moo fi ëpp tur mais su fekkee ne loolu la ñuy gis chaque jour lool mooy modèle bi xam nga modèle benn référence nit ñi dañuy am tendance yaakaar ni yoon bi lii la mhm. yéen huit mars chaque jour j'ai l'habitude de la dire personne ne va aller chercher benn jaaykatu caaf boo xam ne ni mi ngi ak beñe ak pastel bi nekk si mbeddam di ñafe di yóbbu këram ci sutura déedéet dañuy dem jëli benn waykat wala benn truc boo xam ne nii en fait à part Sénégal kenn xamu ko Mm-hmm. à part musique am génnul suñu rayon yi fii la ko gars yi parce que d'ailleurs la musique sénégalaise de manière générale mm-hmm. soriwul parce que profondeur wu profondeur wu contenu bi ñi ko ciy def bëriwul mm-hmm. après nga nga bugg am na ay xale yu ndaw yoo xam ne nii dañoo bokk benn émission chaque année ñu imposé ñu ñoom ñooy nekk si publicité yi ñooy nekk si émission yi ñooy gagné yenn marché yi ah, mais xale di bëgg a tekki di gis loolu danaan mais ça c'est le modèle donc c'est aussi simple que ça xam nga média ak média dafa am doole audiovisuel dafa am doole. Mm-hmm. xam nga bukki da nga koy muy lépp lu ñëpp wax dëgg la. j'ai envie de dire souvent euh, da ngay am impression que lu ñëpp di gis di ko dëgg. Mm-hmm. donc nous avons une crise de l'opinion portée par des grands influenceurs. Mm-hmm. voilà tey mais mais tamit gis nañ fi comme euh, si li ngay wax noonu si logique boobu culture de la médiocrité euh, mais loolu laa doon loolu laa du bañ carrément parce que j'ai pas voulu être méchant mais daal li xam mooy ay contre modèle la ñuy teg mm-hmm. ci euh, lumière bi ñëpp di leen gis a force nga leen di teg ñëpp di leen gis nit dañuy yaakaar ne ñoom la ñoom ñooy les vrais modèles mm-hmm. c'est ça le souci léegi nag après mimétisme bi toppandoo bi day commencé ñëw te xam nga euh, tey soo laajee nga def sondage nga laaj xale yu ndaw yi les petites stars la yi nga xam dañoo teg seen bopp star yu ngan mm-hmm. koo laaj Sénégal tey boo ko tijjee dañ naan la xam nañ ko ñoom ñëpp suñuy dox dañuy changé léegi même seen école yi elles sont devenues des stars mm-hmm. parce que nit ñi ñoom ñoo leen mettre si caméra yi ñëpp di leen gis dinañ gis kuy saaga dinañ gis souvent kuy saaga wala kuy euh, ah, koo xam ne comédie lay def ñu jékki-jékki ñu ne euh, tel comédien telle personne may nañ ko benn Range Rover may nañ ko benn oto vingt millions voilà trente million léegi après lan la xale yi di wax ki sa góor si kay ma laaj ne ma moo tax niveau xale yi baissé mhm. ma ne ko mais est-ce que xool ngeen ñu leen jàngal yan condition la ñuy nekk mhm. on peut offrir à un comme tu dis contre-modèle benn benn Range wala benn Lexus. Mhm. au même moment mosoo gis ci réew mi benn imam boo xam ne ni ci quartier bi la nekk même pour mu am xaru tabaski a pose problème te pourtant ku fi ngénte mooy teew. Mhm. kuñ fiy dajal su ñëwul jullee néew bi kenn du ko yeewi. Mhm. kon xam nga imam am na solo ci biir koñ. waaw léegi su doon dañoo jël imam yi ak prêtre yi modèle ñu bëri dinañ bëgg a nekk ay prêtre ak ay imam. mais ñun ñii ñun fi mu nekk nii les gens disent man bëgguma am njàng bu kawe. waaw parce que nee nañ Sénégal yaa ngi léegi nekk nit doo tekki foog nga nekk dof comme ça nga tekki fi ah mais yow mhm. je demande à mes étudiants est-ce que benn lutteur bu siiw pour ma bañ a tudd turam woote woon fii man ma woote sama cours mais les gens de ma classe m'ont clairement dit si kooku la ñuy dem ndajeem ñun ñu bàyyi fi sa mhm. loolu mun na la permettre nga nga nga mesurer un peu tolluwaayu askanu Sénégal ak seen xalaat fi tol toll donc lii ñuy am nii bu mu bett kenn bu mu bett kenn. donc média yi am nañ ci part de responsabilité. ah mais bien entendu gis nga su fekkoon ni mm. média yi dañuy boycotter série yi nga xam ne nii avec leur scénario bidon. Mm-hmm. ku ñëw proposer leen ko duñ la faale mais wutal série ab sponsor. benn kenn ki bu première saison suy démarré duñu am sax chemise bu baax. Mm-hmm. avant ñu egg sixième saison ñoom ñoom ñuy dawal oto. <laughs> mais ça c'est les médias ñoom ñooy nangu produit yooyu te xamuñu ni produit yooyu après ça rend nocif l'existence de la société et c'est ça qui est dramatique moi je peux comprendre ngeen spon ngeen jël ay série mais que vous soyez très rigoureux par rapport ak yi ñu leen di tegal xool ko càmbar ko yow yow déjà naka nga gisee position wu euh, Jamra euh, naka nga gisee xeex bi nga xamante ni waa Jamra dañ koy xeex pour la sauvegarde de valeurs au Sénégal yow ban jàngat ci am mais jàngat bi nga ci am daal mooy képp koo xam ne nii bon man nag personnellement man dama jàpp ni bon su amee ñoo xam ne nii ay kii lañ ay bénévole lañ parce que ñoom dama leen di jàppee ay bénévole li ñuy def noonu fayu ñu leen ci ñoom ñoo ko décider d'accord sauf que nag Euh, dafa am euh, léeg-léeg ay jafe-jafe ci affaire yi mooy dafa xam dafa am ñoo euh, léegi ci démocratie ak laïcité dañ ci bëgg tënk affaire liberté. Mm-hmm. mais on a l'habitude de dire liberté n'est pas libertinage vraiment nag ñu mel ni ay Jamra su fekkee ni mënuñu leen a gërëm bu leen kenn xas parce que ñoo xam ni dañoo jël seen temps jël seen xaalis jël seen truc di xool lan fan société bi su buggee weng ñoo parce que ñoo ñooñu ay lanceurs d'alerte lañ suñ fi nekk woon mu gën a ñaaw. Mm-hmm. parce que am na lu bëri lu nit di def yaa ngi ci ciy donc voilà man je ne peux d'ailleurs euh, xam naa bu baax euh, euh, comment dirais-je encore mm. seen président tasse nañu ay yooni yoon ay plateau je sais que il n'a pas changé si principe ñi ñi ñi ñi ñànk Jamra depuis bañ leen xamee depuis temps Latif Gueye ba léegi il font des combats de principe musuñu cee valse Mm-hmm. donc on mais, est-ce que tamit parfois yenn xeex yi du dem euh, ba enfreindre la liberté des autres comme dañu nekk ci réew démocratie ku ne tamit ay droit voilà tant que ci liberté la yam ça ne pose pas problème mais je trouve que léeg-léeg nag du liberté affaire du libertinage libertinage nag moom c'est antagoniste avec les lois et les règlements d'un pays mais liberté ku mu neex nga dugg sa biir nekk defal la nekk kooku la concerné ku mu neex décider ni man lii la gëm ci ay valeurs yoo xam ni peut-être c'est contraire avec des valeurs religieuses ou des valeurs traditionnelles man je suis un grand libéral man vraiment jàpp naa nit ku nekk loola neex am nga droit def ko ci sa ci sa ci sa personne ak sa individu. Hmm. sauf que fexeel rek ba soo koy def bul jalgati loi a règlement wu réew mi. Euh, euh, euh jëm ci euh, crise des valeurs comme ni nga koy waxee muy criminalité bi. Euh, comme keroog rek maa ngi koy wax am na léegi actuellement li ñuy gis si affaire euh, criminalité violence au Sénégal euh, peut-être il y ans ñun bi ñu nekkee collège yooyu si ay film rek nga ko daan seetaan wala ñu naan la xewee na États-Unis d'Amérique xewee na France ainsi de suite wala ngay seetaan film gis ko parfois yenn action yi sax di nga ko gis gëmm ne lii munul nekk ci wàllum violence ci wàllum criminalité mais léegi dañ koy dund carrément au jour criminalité ñu koy gis euh, bu mm-hmm. xewul sa koñ mi ngi xew sa koñu xarit ainsi de suite na nga gisee euh, le le le sénégalais est devenu violent lan mooy cause bi pourquoi le sénégalais est devenu violent ah, mais, mais faut quand même, il, il faut nuancer mm -hmm. c'est pas le sénégalais qui est violent qui est devenu l'homme est, par excellence un être violent mm-hmm. bu leen fàtte ni tous les individus que nous sommes toutes les personnes que nous sommes ay animaux lañ on dit que l'homme est un animal pensant Mmh. un animal a une dimension instinctive dafa am ay instinct léegi nag pensant bi loolu mooy raison bi mm-hmm. foofu nag la réponse bi di ñëwee dañoo dem ba li nga xam ne ni moom la yàlla jox muy xel ak xalaat mu war a réguler ñun suñu nekk bàyyi ma nekk bàyyi ma bi dafa jël le dessus sur nekk nit ki moi ce que j'appelle une crise de la euh, une, une crise de l'individuation, une crise de l'humanité, une, une, une désacralisation de la personne. C'est que dañ dem ba euh, topp jamono ba fàtte ni ñun ay nit lañ léegi nag sunu lii nite si ñun daf ñoo rëcc ñu bàyyi fa sunu nekk bàyyi ma te bàyyi ma du xalaat parce que amul xel amul lu muy xalaatee xam nga bàyyi ma lu mu xam yëg-yëg mm-hmm. waaw léegi jamono bi daf ñoo tënk ba ñun ñëpp ay mbir suñuy dalee du ñu xalaat dañuy bàyyi on laisse libre cours à nos sensations à nos émotions à nos pulsions xam nga soo demee ba dugg ci bus nga gis benn jigéen nga am ay yëg-yëg ci moom ba mënatoo contrôler sa bopp mm-hmm. mooy xalaatoo yow bàyyi ma nga nañ ma baal nag quoi jamono dafa dox ba mm-hmm. ñi nekk ñi nite ci biir askan wi bëreetul mën mm-hmm. nga nag sol sa yére di dem ak di wax ak nit ñi mais suñ la saytoo bu baax a baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. comportement bu bëri booy doxalee di ko waxe yow tu trouves que nit war naa mën a dox sol ay yéreem ba mu neex ko muy saw si mbedd nit nit ku nite mu sol xaftaan sol yéreem yu rafet. ajjuma mm. ne dem mu taxaw si mbedd ñëpp di ko gis. mu taxaw di tuur ndox après dem yoon mais loolu euh, bàyyi ma moo doon tuur ndox si mbedd est-ce que nit euh, war na mën a dégg nga bërki dem si biir jàkka nga dégg ay nit ñoo xam dañoo xeex ba damante loxo. Mm-hmm. voilà ainsi de suite ainsi léegi il faut que xam ni société mooy askan askan ay nit a fa nekk nit yàlla daf ko tënk ci yëg-yëg mais jox ko xel boo xam ni moom mooy réguler yëg-yëg boobu suñu demee nag bo suñu yëg-yëg ëpp doole suñu xel ak suñu xalaat su boobaa dootuñu comporté wu comme ay nit dañuy comporté wu comme ay bàyyi ma d'accord mais mais mais tamit ñu ñëw ci euh, violence conjugale bi ba bala ñuy ñëw si euh, yow jàngat bi nga am ci affaire pay maanaam ki nga xamante ni euh, faat na boppam faatale ñetti uh-huh. doom muy événement boo xam ne yaa am na yaa une deux semaines mais violence conjugale yow en tant que sociologue ban jàng nga ci am maanaam way dencante yi violence bi nga xamante ni am na ci kër yi metti na kenn mu ñëlatul sa moroom euh, xeex bi xuloo bi xiiroo ŋaayoo divorce yi sax bari na tamit lan moo indi euh, euh, violence conjugale yooyu jël benn empleur bi actuellement d'abord parce que dëkk dafa métti dëkk ak jabar wala dëkk ak jëkkër c'est une épreuve boo xam ne nii la malheureusement dañoo dugalul ci école bu ñu koy jàngale nit dafay mat rek am xaalisam ne damaa bëgg jabar ñu ne ko demal nga xool ci koñ bi ko bëgg mu dem jël jigéen day toog yor taaram yaayam ne ko xoolal ku la mën a yor nga dem alors que xam nga dëkk ñaari nit ñoo xam ne dañuy dencante affaire de relation la relation relation dafa dafa reposer wu sur lu ñuy wax la réciprocité réciprocité mooy lan mooy mooy jokalante xam nga lan mooy jokkalante. Mhm. munoo am jabar ne yow yaay kilifaam respecté woo ko nga ne après moom na la respecté. munoo am jëkkër ne yow jigéen ga amoo doole buggoo kenn du la def lu metti mais yow joxoo ko cër mm-hmm. mu amati ci beneen affaire aussi une dimension dans cette relation ce qu'on appelle l'endurance yàlla sax day wax ci alxuraan ne enjoignez-vous dans la vérité et dans l'endurance di leen wax di dox di wéy ci dëgg ak muñu leen su ngeen ko defee rek ngeen nekk samay ñoo xam ne ñuy jege ngeen mais léegi nit ñi mënatuñoo muñ ku mënul muñ sa kër mënoo muñoo sa frère mënoo muñoo sa petit frère mënoo muñoo sa neveu mais doo mun a muñal sa wala c'est ce que j'appelle l'apprentissage ou l'école du mariage sëy dañuy jàng dañ lay dugal si classe ñu jàngal la nan nga koy dem définir mais fii dañu bëgg a dugal si benn classe boo xam ne ni dañuy tëbal classe sax à la limite mm-hmm. on se rend compte que on a nous apprend pas à se préparer pour entrer dans les liens du mariage moo tax léegi les se font et se défont presque de manière très rapide par le simple fait que épreuve la exercice boo xam ne nii la d'ailleurs ñun on l'appelle une prison ni sëy kaso boo xam ne nii la dafa laal tuuti nga soo waxoon fii. Mhm. mais kaso nag boo ci waree dem te tàggatuñ la soo ci demee day métti ci yow nga soit nga dee wala nga saalit sëy mooy loo xam ni saa yoo ci nekkee bis bu nekk da naan lu gën a métti mi ngi sama kanam mi ngi ñëw. Mhm. les sociétés traditionnelles dañoo duggoon ci école mariage ñu jàngal leen ko par les rites d'initiation Euh, par la compagnie des pères euh, par les bajjan par les nijaay par les mais aujourd'hui léegi nit ñi reposer tuñu si mécanisme yooyu pour pouvoir jàng ko moo tax ñi koy def yëpp pare wuñu j'ai j'ai l'habitude de dire euh, soo jëlee dix personnes yu sëy suñu defee trois mois ñu dox rek ku nekk na ni mais lan moo ma dugal ci lii su ma yëgoon du ma sëy mm-hmm. soo jëlee presque fukki jigéen yu am jëkkër toog nañu benn moment boo xam ne ñoom rek ñuy jooy ne su ma xamoon ni lii du ma si dugg parce que elles étaient pas très bien outillées mmh. à entrer dans les liens du mariage loolu nag su amee nga dugg ci biir ñi découragé ñi liñ ci doon gis gisuñu ko ci ñi jàppee woon ko paradis ñu dem ba si biir xam ne prison la day am ay frustration yoo xam ne kenn ku nekk da koy téye pour benn affaire bu leen jotale rek c'est la violence or nit mun ngeen jote ci ay ngeen am ay désaccord am ay malentendu mais su fekkee ne da nga ne ku góor ki muñ ku jigéen ci ne damay muñ tey koo fi gis ñu koy tagg naan def na vingt ans de mariage mm-hmm. cinquante ans xamal ni ku jigéen ci muñ na ba dee ku góor ci muñ na ba dee mm-hmm. mais muñ nag doo judd rek def ko de dañ la koy jàngal dañ la koy jàngal donc ah. dañu tàggatul ñu bari si sëy euh, yow euh, mm-hmm. il n'y a pas d'école du mariage au Sénégal il n'y a plus d'école du mariage au Sénégal mais amoon na fi naka la fi amee woon moom laa la xam nga amoon bi moom mooy yow da nga doon comme jigéen day nekk jànk ñu ne ko dama di sa bàjjan suba ba ngoon boobu douze ans treize ans ngay am mm-hmm. muy wax ak parce que boobu le mariage se les mariages se se se presque à l'âge de quatorze ans mm-hmm. pendant deux ans mu am la sous sous son sous sous sa coupole di la tàggat di la jubbanti di la redresser di la wan yoon nii la ñuy mayee ndox ni la ñuy sukkee nii la ñuy woddee sër nii la ñuy defaree andu cuuraay nii la ñuy muñalee góor ñii sax la ñuy sëyee ñii la voilà mais ñii xamuñu loolu c'est pas de leur faute. Mm-hmm. dañoo tombé ci ci jamono boo xam ni internet moo lay jàngal film yi ñoo lay jàngal tubaab yi ñoo lay jàngal. tubaab yi nga xam ne ñoom xam nañ mariage le taux de le taux de mariage est très en baisse ñoom mën nañoo ànd pendant fukki at ñaar fukki at kenn du wax kaa ñu sëy mën a yow mm-hmm. que xam nañ ni épreuve bu difficile la te bugguñu di ci dugg di ci génn mais fii nag jàngaluñu ko ñu roy tubaab yi indi ko suñuy biir euh, contexte on l'a pas trop endogénéisé et finalement c'est l'échec total. mais, tamit dañuy wax ni peut-être c'est l'aspect financier euh, jigéen ñi dañu matérialiste ainsi de suite affaire u xaalis. non non non mhm. jigéen loolu affaire u taw bi mhm. euh, de dire mais euh, bu fekkee ni ki ngay sëyal xamoo ko mooy kan tu ne pas le profil parce que xam mooy kan bi yëpp am na xaalis lu muy liggéey affaire bi du xam mooy kan mooy est-ce que am na wér-gu-yaram xel est-ce que am na wér yaram ci boppam ngóor euh, si soo jëlee ñetti descendance am nan lañ amoon habitude yore jabar mais fii dox dajale rek pendant deux semaines trois semaines ñu mayal c'est tout. parce que waa am na xaalis mi ngi dawal 4-4 waaw nañ ko voilà um, umpale umpale dafa am ñaari critère mhm. ñu jigéen ñi mooy ne waa ji am xaalis ku mhm. góor ki mooy na kii rafet rek na rafet na rafet voilà waaw su fekkee ni sëy dañ koy tënk ci xaalis ak rafet nag su fekkee ni da ngeen a def six mois nga dem ba démythifier rafetaayu ndaw si. Mhm. c'est fini jéppi nga ko. Mhm. moom mu dem ba six mois nga jékki-jékki la nga ko wanoon ni moom nga yor moo xam ne yoroo ko. ko jéppi na la coow la commencé na. affaire Paye yow ban jàng nga ci am maanaam euh, euh docteur bi nga xamante ni moo fi euh, xaru woon uh, faataale ñetti doom yow déjà ban jàng nga ci am parce que ku nekk mi ngi joxe analyse am mais en tant que sociologue. am nga si analyse bi ma si joxe c'est tout purement scientifique. voilà du nekk ay opinion wala sensationnel bi ci njëkk mooy awma ci benn doute c'est quelqu'un boo xam ne daf feebar awma benn doute psychologiquement non dafa feebar kooku ku ku ku ku xelam ñoom mënu ko deer euh, soo déggee li ñu lay wax am nañu ne la bon soo ko xamee dëgg c'était quelqu'un boo xam ne nii mm-hmm. il était très casanier bëriwul woon ay am di jàmm bëriwul woon dugu-dugu voilà il était recroquevillé sur lui-même donc man tàpp bon nit profil boobu profil ku feebar la beneen bi ñu des mooy bi nga xam ne nii dafa bëggoon a faat ñaari xale yi en réalité daf doon régler benn règlement de compte la doon def moo jabaram quoi. Mm-hmm. supporté wul divorce bi. nee na ko mu jàpp ni moom comme peut-être que euh, li ko gënoon a neex ci àddunaam perte na ko kële dina ko bàyyi mu dund mais ku xam en psychologie ce qu'on appelle la dyade mère enfant mm. jaxasoo bu deretu yaay jaxasoo ak doomam mm. mais soo jëlee ñaari doomam kay mooy biologiquement yaa koy bàyyi muy dund mais psychosocialement rey nga ko mm-hmm. ñetti doom donc man hmm. euh, loolu laa jàpp beneen bi ci mooy euh, li ko dafa am ñaari problème yoo xam ni ñoom ñoo ko dal benn bi mooy daawul dem defi ji consultation ci ci wàllu boppam beneen bi mooy amul woon fu mu wéeruwaay wéeruwaay boo xam li ñu mën wax sànq entourage yoo xam ne nii hmm. dafay demalanteeg ñoom di waxanteeg ñoom ba ñoom ñu war koo mën a gindi su fekkoon daf doon jël décision bu bon jëw euh, jàpp nga ni Sanogo peine de mort mën na régler criminalité bi am fii ci Sénégal. mën régler absolument waaw wala peine de mort États-Unis la am na fa ci ay état. Mhm. te foofu la taux de criminalité bi ëppee. Mhm. jàpp ma loolu. li ma jàpp daal te muy dëgg bay dëgg. Mhm. mooy dañoo war a def procéder a a askan dafa am fu ñuy jaar ci papa yaay. su fekkee ni le couple connaît une crise forcément la progéniture aussi sera défectueuse. Mm -hmm. Si la progéniture est défectueuse suñu màggee actes yi ñuy posé ñun askan wi yëpp dañ koy mujj donc man ca njëlbéen nga laay commencé nañu xoolaat kan mooy nekk sa papaay ak kan mooy nekk sa yaay doom ci processus boobu am na doom boo xam ne nii su ko jigéen juree ba yar ko góor jur ko ba yiir ko fondamentalement booy boobu dafay nekk un enfant modèle dina am ay sikkam dina am ay mais am na foo xam ne nii ñemewu faa jaar te a faa jaar parce que dañ koo ñàkk ba pare ñàkk boobu nag mooy tax même bu demee école même bu amee ay xarit kenn mënu koo redressé dina def yëfu nit dina def yëfu xale mais du du exagérer du du pousser le bouchon il y a une véritable crise de couple après il y a une crise de la progéniture après il y a une crise de maturité mm-hmm. et fondamentalement ça se répercute et connaît des ramifications à travers tous les segments de la société et s'exprime mm. Euh, si vous voulez, euh, complètement euh, dis disproportionnel. C'est ça aujourd'hui le, le, le, le souci. man ma jàpp ni du ay affaire wu peine de affaire wu nit la ak ñiy tabax nit ak niñ koy tabaxee. éducation su fekkee ni na ñu def ay jéego ci loolu l'homo sénégalais bi ñuy tabax suba mun na nekk ku ñoom mais ma jàpp ni ki may wax nii juddoogul peut-être dans deux ans la wala dans trois ans. Mm-hmm. am na ci exception yi ci biir société bi. mooy ñi nekk ci njabootu sëriñ si wala ñu am chance yàlla may leen yaay ju baax ak papa ju baax dara fëkku leen seen bët dara muuru ko ñoom comme on di en français bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. di leen amal njëriñ mooy nañ leen jox jugement ci seen i dignité ci seen ngor ci seen jot que ñu am xaalis que ñu ñàkk ba ñu am xaalis yooyu faale parce que ci noonu lañ leen yaree ci askan boobu lañ sotti ko. léegi nag ñeneen ñi nga xam ne nii ci yeneen euh, situation yi lañu sorti ko donc fondamentalement kéwél du tëb doom jëbët français yi dañuy wax ne calebasse de lait ne peut pas ceinturer du sang mais calebasse de sang aussi ne peut pas ceinturer du lait boo jëlee leget nga def ci traite su bëtee mënul génn song mm-hmm. ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Abdou Khadre Sanogo nekk sociologue Abdou Khadre Sanogo euh, prix Goncourt 2021 ñu jox ko benn sénégalais qu'est-ce que ça fait euh, ñu Euh, benn sénégalais wala africain euh, gagné benn prix Goncourt wala raaye boo xamante ni tubaab yi ñoo koy joxe euh, loo xamante ni ñoom dañ ciy gis seen bopp ci seeni valeur d'abord daal di koy jox benn africain wala benn sénégalais wala un un noir voilà qu'est-ce que ça fait est-ce que loolu war na nekk fierté waaw wala déet fierté mais loolu mooy loolu encore rek ak esprit de complexe sénégalais yi di am je peux t'assurer que am tur boo xam ni su ko duñ ko ko jox mun naa la waatal ni la am na bu tuddoon mhm. wala mu tudd Mouhidine wala mu tudd Cheikh Ahmed Tidiane d'ailleurs le débat aujourd'hui avec mais mais il s'appelle Mohamed Mbougar Sarr waaw mais xam nga ba léegi am na benn situation boo xam ni moo ci dugg bugguma sax di mhm. épiloguer si si tur man mhm. ce qui le plus c'est que même su fekkee ni justement nag xam nga ñoom lu leen intéressé mooy nga tudd benn Mohamed nga yor tur bi. Mm-hmm. mais ñu def ci jikko ji ak comportement bi jikko euh comment s'appelle encore Éric wala ñu def ci jikko euh, benn modèle Napoléon wala Charles de Gaulle. Mm-hmm. aujourd'hui le débat est un débat civil le défi est un défi civilisationnel tubaab tant qu'ils ne parviendront pas à de nous de mauvais et de très mauvais croyants que ce soit dans la croyance chrétienne ou dans la croyance musulmane voilà man daal naa ni man personnellement. loolu du fierté gis gis fi non neneen laa ko a waxee. Mhm. am na ku fi dem def concours jàng alxuraan. Mhm. ñibbi si biir Sénégal pays yi ci monde bi yëpp booy bi su gëmmee aaye bo ko jox mu tari ko. Mhm. te bi mu ñëwee kenn euh, ordre national du lion xawma du mérite. waaw te ma jàpp ni vraiment ñun suñuy référence loolu la. donc suñuy référence ci tey ñun suñu demee ci benn euh, conférence religieuse suñu gisee xale yi di dañ leen di naw parce que on se dit xale bu toll nii mën lii mérite la surtout langue arabe ak ni mu méttee nga jàng cent quatorze surat mm-hmm. buñ ci wax suñ ko yëkkatee nga firi ko looloo gën a nekk mérite torchon yi ma gis nii nga xam ne léegi Sénégal ku mu neex nga dem bind sa këy du soleil rek jëm ci défendre ay ay ay valeurs yi nga xam ne moom loolu tubaab yi ba a dégg il y a un discours qu'ils veulent entendre mm-hmm. le discours qu'ils veulent entendre mooy leen Euh, góor jigéen na dox biir Sénégal le discours qu'ils veulent entendre mooy ñu ne leen voilà na góor ñi nangu euh, ci biir jàkka yi nga xam ne ni dañuy jiite ay jigéen di ko jiite na góor ñi nangu suñu confrérie yi ay jigéen ñi jox len ci cër te lol sénégalais duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba bis bu ma bindoon ouvrage mm-hmm. je fais l'apologie pour montrer que Serigne Touba mm-hmm. est l'un des plus grands euh, panafricanistes mieux est l'un des plus grands résistants Mm. mondiaux et internationaux livre boobu mm. foog naa murit yi ñoo koy jënd tijaani ak waa Sénégal mm-hmm. kenn du ko lire te yàlla def na Serigne Touba ni mu résister Nelson Mandela résister wul noonu ni mu résister Gandhi résister wul noonu mooy koo xam dañ ko fekk tooñ ko mu nangu dem jaayante gars yi ci esprit ci cerveau ak ci tëj xaddiwul benn yoon te bi mu ñëwee résultat bi mu am mu am mais pourquoi dans les instituts du ñu jàngale dans les instituts internationaux tey mm-hmm. ce qu'on appelle les chaires de civilisation africaine mm-hmm. tey suñ ma fa jëloon su ma ñëwoon ne man je veux enseigner Cheikh Ahmadou Bamba wala Seydi Hadj Malick ils allaient refuser te ñooñu c'est des modèles pour l'humanité pour l'humanité tout entière je mm-hmm. parce que ci seen doxalin ak ci seen jëfin tabax nañu modèle de nit boo xam ne nii société bu bu bu bu ñu ko topp jiital ñooñu bu soo bu soobee yàlla société boobu change mais après on on me parle de benn ouvrage boo xam ni dañ siy expliquer ay affaires yoo xam ni vraiment ah et et Diary Sow moom mi fi réewoon euh, def nekk deux fois mais dañu nekk ci actualité bi tout le monde en ah, parle voilà même chose moom tam mu génn mais kooku deful dara mm. ñan ñoo ñu tooñ ñi jël suñu xaalis ñun jox ko xale boobu naan na dem jàngi ji et puis je tiens à préciser que mm-hmm. situation yooyu ñuy waxee ni diw mooy meilleur élève bu Sénégal c'est archi faux ah bon parce que souvent concours yi mm-hmm. duñ ci duñu ñu yóbbu leen foofu voilà et puis euh, dégg nga ko bi ay problématique yi voilà elle elle s'affirme en femme émancipée sunu tabu yi nga xam ni dafa nekkoon ci biir société yëpp mu fule ko à terre. Mhm. ci xale boo xam ne o sax vingt ans. après mais mais modèle boobu la tubaab donc ñu ngi jëlaat suñu xaalis di ko sànni si ngelaw nguuru Sénégal. ah oui bon gëwuma ni nguuru Sénégal ñoo ko financé dañ ni benn waaye bo am xaalis même su fekkee ni kooku dafa jege nguur gi. non maanaam ñi nga xamante ni souvent dañ leen di faye ñu dem jàngi bitim réew ñëw di di di kii ay contre-valeur aw ma benn problème ci loolu mm. vraiment ku mu ne su fekkee am na ay euh, rubrique yoo xam ne mën nañ ci yóbbu ay doomu Sénégal ñu jàngi ji ñëwaat il n'y a problème du loolu le problème mooy génn wàll gi yëpp après il se transforme en en renégat Mm-hmm. dañuy jàppee seen bopp tubaab xeeb ñu ñun ñi nga xam ne ni ñun lañ bokkaloon askan donc souvent c'est comme ça que ça se passe voilà renégat mooy nga nekk nit ku ñuul ku dem di defendre ay principes yoo xam ne sax à la limite tubaab bi wuñ ko euh, beneen ponk bu am solo actuellement moom la ñëpp di waxtaanee euh, des scandales euh, Miss Sénégal coow li bari na Miss Sénégal bu deux mille vingt gis nga génn na wax yaayam wax que moom peut-être elle a été victime de viol et elle est maman d'une de d'un enfant de quatre mois wala cinq mois xamul koy papam en tout cas mu tout tuumaal wala sax accusé comité d'organisation bu Miss Sénégal euh, léegi yow ban jàngat nga def ci loolu euh, coow li bari na ñëpp a koy wax euh, même waa comité bi génn nañ tamit seetal seen der yow en tant que sociologue observateur ban jàngat nga am ci organisation Miss Sénégal sànq rek man su may jàngat ci fay laa yem vraiment mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que li femme bi wax dëgg la que du dëgg man jugement de valeur yooyu nekk na mm-hmm. affaire daal laa mën a wax waaw Miss ñàkk fayda weesuwul nga bàyyi nga jur sa naan yaa ngi koy yóbbu mu defi parce que Miss être Miss au Sénégal fii nii hmm. nekkul dara luy jëmmal taaru jigéen wala ay valeuru jigéen ci biir réew ñun jigéen ji jox cër dëgg mooy ki nga xam ne ni jàng na mën na mi ngi liggéeyi di làkkatu di def ay activité politique am ay activité syndicale am kenn gisu ko ci exhibitionnisme en fait dans notre société fësal sa bopp ak fësal sa yaram honnêtement loolu nekkul modèlu femme sénégalaise loolu mooy benn ñaar. Hmm. gis naa ni élection Miss yi nii ça contribue davantage à chosifier la femme. jigéen nekkul objet boo xam ne nii ñun dañuy couragé suñuy bras di ko xool muy défilé ak muy sol de bain les femmes ne sont pas là pour amuser la galerie yow yaa ngi noonu tey il est dix neuf heures moins nga nekk sa rajo di contribuer au développement de ta société te jigéen nga. Hmm. pourquoi bon sang su ñu waxee jigéen rek ñu jàpp ni yaramam da ko war a a a nekk si même publicité yenn yi sax il faut que ñu imposer la même clip yi il faut que ñu imposer la. Mhm. ne la il faut nga sol ay daggit mhm. nga bokk ci sinon clip bi du neex jigéen ñi après nga ñëw jël sa xaalis nga dem dama ne waajur bu fonk boppam fonk askanam du def loolu man xaw ma ba xam li ñu wax dëgg la wala du dëgg femme bi su fekkee ni loolu daf ko dal maa ngi koy mastawu te di ñaan yoonu réew mi ñu def ay investigation ci lool xool ba xam li mu wax dëgg la wala du dëgg su fekkee dañ ko ko ñi ko ko teg nañ leen sanctionné ñu daan leen doole mais loolu man benn parenthèse la man benn affaire laa bëgg a mhm. ci notion wu Miss yow da nga bëgg ñu éliminer ko carrément jaratul ñu fi am. buñ ko éliminer ñoom ils sont man je te de mhm. créer leur concept mais nañ ci génne Sénégal. ah bon comment ça ñi yàlla lii. nañ defar seen truc ne oui euh, Miss wala ñu def Miss Ébène. wala ñu def en benn mhm. parce que ñun Sénégal Miss Mm-hmm. mooy ki nga xam ne nii dafa taaru mais taaram mi ngi koy way mi ngi koy wan jëkkëram mi ngi koy wan ki nga xam ne nii moom la ko seqal te kenn du ko mm-hmm. mi ngi door waar ci man la vraie miss mooy kii dem di taxani kii dem di yéeg si sareet yi kii yeewu quatre heures du matin di dugg si marché yi kii kii ñafe matin midi soir di yóbbul njabootam kooku mooy miss Sénégal mais ñii nii amuñu benn euh, image boo xam ne nii dañ koy yóbbu turu Sénégal fu sori amul man jàpp ma ñi nga defar say xawma la ñaata ngay mesurer ainsi de benn affaire rek laa leen bëgg a laaj est-ce que hmm. ñi nga comité yi yëpp seen di laaj est-ce que ñi ngan ci gis benn yoon ñu ne am na ku mës a nekk seen bokk seen jarbaat boo xam ne bokk nañ dañ leen di fayal école yu baax ñu dem nekk ay avocat nekk ingénieur hmm. ah wala ñu nekk journaliste après en retour ñu jël doomu baadoola yi profité ci seen beauté jaay leen monde bi dem defi ji seen contrat am ci seen pourcentage yu duun dugal seen poste dem fayal seen doom ay jàng ñi ñàkk fayda xam nga mooy ñan mooy ñuy bàyyi seen doom ñu dem présenter aussi je crois que à quelque chose malheureux bon lii su weesoo fii mhm. parents yi am fula ak fayda yëpp dinañ ci profité pour parce que aussi affaire bi la responsabilité elle est partagée elle est partagée parents yi bàyyi seen doom à mon avis ils ont été irresponsables même si loolu joxul droit wu ken nga jël xale bu ndaw boo xam ne elle est innocente nga yóbbu ko jeter ko dans la gueule du loup ba mu am su fekkee am na parce que je dis bien su fekkee ne ay si laay waxe waaw mm-hmm. ah, léegi nag am na ay autorités yu fi nekk nañ autosaisir parce que viol fi dañ ko fi sanctionné ay dañ ko fi mais peine délit bu ngand la biir Sénégal. criminalisé mm-hmm. xale bu jigéen mënul mm-hmm. wax ne dañ maa drogué ko entendre ko wax ko fat lañ ko ko defee woon ñu def ay études def ay enquêtes su fekkee dëgg la. ñu sanctionné ñu ko ko def su dul dëgg aussi Sénégal yëpp xam ni elle raconte des contre-vérités. des mhm. du rek le principe de Miss am na fi ay émissions ay xale la jël. Mhm. fecc loo def leen ay musiciens te ñoom seen benn doom du si bokk ñoom ñoom seen doom ñu ngi ci école yu mag yi bilingue wala ci école internationale. di jàng. waaw donc damaa jàpp ni nag ñàkk fayda weesuwul nga bokk sa doom di ko comme boo dugal ci saladier après le corps de la femme est, un, est, est, une réalité sacrée. Les femmes doivent davantage se réapproprier de leur corps. Mm. corps cinéma moomu ko publicité moomu ko média moomu ko ñoom ñoo ko moomal seen bopp. Hmm. pourquoi ku bëgg a neex rek na la génneel sa yaram ma fay la xaalis femme yi nangu. je crois que aussi c'est un débat qui devrait être porté par les associations féminines qu'elles contribuent à davantage sensibiliser les filles pour leur dire nit mun na réussir ba nekk présidente de la république te miis du suñuy réalité parce que miis affaire sol daggit la ak affaire sol ay coppit loolu cette culture de nudité là c'est une culture occidentale cette culture de l'hypersexualité c'est une culture occidentale voilà ñun mën nañoo sunu maam yi mën nañ doon dëbb ay comment ça s'appelle dugub lay seeni truc ci village def yaramu nen wala ñu tëju mais pas ay sol ay défilé dem ak ñëw après ñu ne way yow yaay ministre à mon avis même c'est ridicule c'est très ridicule mënoon naa jàpp ñu ne euh, euh, nañ def Miss élégance ñu xool ban femme sénégalaise mhm. moo gën mën sol grand boubou bu yiw muur cëram mu sóoru mhm. Mhm. ba pare maquillé mu naturel comme ça on revend encore le modèle si vous voulez euh, de l'africanité de la femme africaine mais euh, mel du la neex maquillage yu sol say càpp fu ne nga tuwaat na c'est ridicule à la limite te après conséquence yi lii rek lay mujjee. lii rek lay mujjee. elle risque de devenir mhm. par rapport au monde du showbiz. Mhm. d'accord nga si ñuy wax ni nañu euh, retirer licence comité d'organisation bi oui ou non. bon man nag par principe nit suy liggéey ben liggéey. Mhm. man je suis un peu contre may jël ay mesures vraiment ay position radicale quoi nañ ko retirer nañ ko benn affaire daal laa xam. Mhm. na génne mbiru Sénégal ci ay affaire am mu defar propre Miss Ebenam eh wala Miss wala euh, je sais royauté wala reine wala je sais pas c'est à elle de voir beneen mooy su ko neexee mu continuer licence am mais képp koo xam ne nii dañ nga dugg di ci yëngatu il faudrait que texte réew mi ak règlement loi yi mi protéger defal lu la neex mais quand même nañu garantir ni xale yooyu nga xam bon seen waajur yi ñàkk nañ fayda ba yóbbu leen fa aussi ak nu mu mënti demee ay sénégalaises la te elles sont innocentes su fekkee ne ñoom dem nañ ba ñu défilé leen nañ nañ def lu leen neex seen yëfu bopp mais quand même nañ protéger xale yi ba ay jàng ak yooyu yëpp ay deuxième la mais quand même qu'on touche pas à leur intégrité mais attention suñu xasee ba nekk majeur nag dépassé dix huit ans nekk mu kalafum jëmm moom. Mm-hmm. su boobaa seen liberté dernière question Sanogo euh, c'est par rapport ak kàddu yu ñaaw yi nga xamante ni moo nekk ci réseaux sociaux yi ci Facebook bi ci WhatsApp bi saaga yi Instagram bi lan nga ciy wax waaw c'est que d'abord c'est l'expression d'une grande lâcheté xam nga xam nga lâche weesuwul nga làqatu ci sa ginnaaw clavier di saaga nit ñoo xam ne ni leer na la ni solo ngeen jàkkaarloo wala ngeen ñëw seen truc doo doo leen ko def bokk na si li ma gën a metti si réew mi quoi vraiment mais loolu aussi à mon avis mi ngi engagé ñi nga xam ne dañoo am ay réseaux sociaux tubaab bi ñoom ñoo ko fi indi te ñu bëri sax duñ ko utiliser mais comme ñun dañoo def la ruée vers ça ah mais luñ ci fekk rek ñu jël mais jàpp naa ne daal vraiment nit ak ni ko yàlla fonkee ba pare wax ko ne nit ñi tey garabam ba mu ne man damaa teral doomu aadama yow ngay làqatu ci ay clavier jël say doigt lu la neex c'est-à-dire boo rek boo d'accordul Hmm. ku wax lu la arrangé wul sax nga jël lu la neex nga saagaw c'est l'expression d'une d'un véritable état de lâcheté voilà lâche dëgg moom mooy làqatu si ay truc di attaqué moroomam nit su amee lu wax da koy wax ne fàng dang ñëpp di ko dégg su fekkee ni am na droit à wax suñ ko joxee parole mu wax ko su fekkee ni dafa am soxla nit ci këram mu dem defi ji ko mais vraiment euh, yàqante bi wuññante worma bi wuññante sutura bi euh, c'est en train de peindre un tableau boo xam ne nii tu léeg-léeg tu as de dire est-ce que yow véritablement ñiy def lii ay sénégalais lañ voilà dama jàpp ni sénégalais waru ko def moroomu sénégalais waru ko def moroomu africain waru ko def moroomu nitam waaw loolu nag dafay exprimer benn lamal doon wax sànq Youssou Ndour dafa woy ni moom li ko yitteel mooy nit ñi nite mais xamul sax li mu wax mm-hmm. day wane ni rek àdduna biñ nekk nii surtout ñooñ man dama leen di jàppee ay bàyyi ma et voilà Abdou Khadre bàyyi lu mu def. Mhm. doo ko ko da nga ko koy da koy jàppee esprit bàyyi ma mais nit ñi dëgg foog naa taluñu làqatu ci ay clavier di saaga ay di saaga Sanogo ma bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi waxtu bi dab nañu. waaw maa ngi gërëm ñëpp de di leen sant di considérer ne rek liñ fi wax ni yëpp du leneen lu dul bëgg njëriñu askan wi rek. ñu mën cee sukkandiku ba defaraat ñun ñëpp suñuy toogaay parce que kenn ci ñun baaxoo fi baax bu ñuy topp di ko wax mais euh, fàttali rek fazakir la ñu waxoon yonent bi fàttali lu am solo la ci waaw ci askan bu ñuy xeeb bu bu bu def ay jéego jéego jéego jéego ba naw chaque jour rek nañu dañu ne fas lu mu daw daw daw daw nga laalaat ko tuuti labale ko mu yokk ay jéego parce que ñun amuñu lu dul Sénégal su Sénégal baaxee ñun la baax Sénégal to wala ñu am image bu ñaaw ci bitim réew ñun ñëpp aussi la ko amal waaw di ñaan yàlla mu defal ñu dégg topp di ñaan yàlla aussi mu làq ñu fu yàgg eggul mais surtout mu sàng ñu sutura te mu baaxee ñu ci aussi ñu sori ay comportement yu nitee di te mu xiir ñu ci def yëfu nit ak nekk nit jërëjëf Abdou Khadre Sanogo ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci euh, disponibilité mu nekk euh, sociologue di remercier suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu site internet www.rewmi.com Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jof